bonjour ou bonsoir salaamaaleykum euh, chers internautes amis fidèles de Web Info TV ñi ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax a ak kontaante leen di am à chaque fois rek di leen retrouver ci suñu plateforme bi di Web Info TV waaye laataa loolu damay bëggee bu baax a baax a baax ñi nga xam ne tey ñoo nekk au niveau national di bëgg bu baax a baax ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci diaspora bi gis nañ seen ay suggestion gis nañ seen ay commentaires gis nañ aussi jàppale gi nga xam ne yéen a koy jàppale nga xam ne mooy suñu plateforme bi di Web Info TV tey nag émission bu mag bi bàkkati nan ko muy eh, web matinal euh, ma nar ci ànd ak ki nga xam ne tey moo acolyte moo ko ki nga xam ne tey mooy Aba le vrai doomu ndeyu oh, doomu yaay <laughs> Jules doomu ñaari tëri Grand Dakar bi si tëri. Mhm. ah waaw loolu dëgg la. l'enfant séeréer dëkk yi. ah. jàmbaar de web info rek. de web info waaw loolu dëgg la. waaw Aba ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. Ah, jërëjëf Jules maa ngi maa ngi amaat mbégte. Mhm. ak contentement bu bëree bëri di jàkkaarloog yow. Mhm. di la nuyu di la sargalaat bu baax waaye di nuyu bu baax nu ami fidèle téléspectateurs yi nga xamante ñu ngi seetaan ñoo xam ñu nekk sous région bi mm-hmm. ñoo xam ñu nekk fii si Dakar wala ñoo xam ñu nekk foofu sa bitim réew mm-hmm. ndaxte ñoom su may xarit leen su may soppee leen à chaque fois man ak ñoom dañoo yàgg euh, ñu naan leen les sénégalais de la diaspora fu waaye mën a nekk man Aba le vrai maa ngi lay siyaar mm-hmm. euh, di la jox sa wàccuwaay waaye di profité du nuyu euh, le PDG di Sadio Fati princesse tey nuyoo woo maa jël nuyoo bi daal di koy si loxom maa ngi lay siyaaraat bu baax di la wax ni waa kër gi namu nañ la hmm. internet yi namu nañ la waaye tey nag damay jël nuyo bi hmm. daal di beral benn nuyo koo xamante ni doomu grande Dakar la hmm. sagu Grand Dakar la saa yu jógee mi ngi xool li nga xamante ni moom mooy yitee Grand Dakar li ñor Grand Dakar mooy Ousmane baax donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuy képp ki nga xamante ne yaa ngi bàyyi xel ah, télé bu mag bii di Web Info TV Journal International démb yëngal nañ réew mi waaw réew mi yëngu na ah, commentaire yi bëri na coow li bëri na waaye tey day gën a neex waaw tey day gën a neex. donc ma lay bëgg waat bu baax a baax a baax a baax a baax di la wax ni princesse fàttewu ma ko a ah da nga ko fàtte da nga koo bàyyi wax dëgg yàlla ndax nuyoo woo li nga xam ne tey mhm. mi ngi préparé ay mhm. mhm. euh, di buzz de l'actualité. incha ki nga xam ne tey mooy princesse. waaw sunu sunu nattu mais may bëggewaat bu baax a baax a baax a mm-hmm. baax ah. mais nag euh, tey balaa émission bi di démarrer damay mm-hmm. bëggee kenn koo xam ni kenn la ci man muy mon ami Habib mm-hmm. si tey moom laal li nga xam ne tey mooy lunettes yi temps moom ah. di ne di à chaque fois rek damay changer quoi nga. waaw waaw non non non niveau bay rek. na <laughs> sànq ba euh, ba ngay dugg si may naan Jules Verre yi moom garaaw na de. non exactement te deux mille marque mu deux mille vingt quatre la deux mille vingt quatre la mi ngi noonu ci wet bi. marque deux mille vingt quatre la nu mu tudd nu mu tudd. non instant yii nii. waa ji nu mu tudd. Habib Habib waaw donc Habib na ma jox waaw depuis Wakam. na ma jox tamit. kenn du moom sama waajur tamit ah. ak baax. tamit Habib jox Jules. Hmm. te man doo ma jox ah. ah tamit ab mi bàyyi say ngay def ana say nit ana say nit mais Ousmane Daba dina ma jox dina ma jox waaw yàlla baax na ah, bàyyi ne xam nga Habib ma ah. Habib say weer baaxul <laughs> donc bay bëgg baax a baax ñi nga xam ne tey ñoo di seen nuyoo mais euh, mm-hmm. c' est normal mm-hmm. xam nga nit dara faa nga wax ko mm-hmm. donc dañuy allier utile ak li nga xam ne mooy agréable pour mettre leen euh, si ay euh, nu ngi koy waxati sax maa ngi perdre les mots pour bu teg leen si ay conditions daal. pour ngeen bañ di di di changer wala ngeen di demaat fenn foo xam ni tey maanaam. Mhm. Euh, mooy lool mhm. waaye tey nag démb Aba dañ def mhm. émission boo xam ni tey euh, émission bu am solo la. émission bi ñu def démb. ñu gis si ay suggestions yu bëri. ak ay commentaires yoo xam ni tey. Euh, ñun lépp la ñuy jëlee positif quoi. parce que tamit boo xasee dugal li nga xam ni tey mooy sa publication. si YouTube donc. xaaral différentes euh, commentaires mhm. donc ñu si béggee bu baax a baax ñi nga xam ni tey commentaire noonu mhm. encore une fois mhm. leen wax ni noonu la kontaan nañ ci bu baax a baax a baax parce que positivement la demee ak yéen ñu leen di béggee yéen ñëpp xam naa après dinaa lire quelques commentaires yoo xam ni tey euh, gisoon nañ ko mais à chaque fois aussi dafa am kenn ku may gis xam naa peut-être doo leen ko bàyyi xel euh, ñu koy wax Fanta moom dama koy béggee bu baax a baax Fanta waaw maa ngi koy seen dama koy gis à chaque fois majeure mm-hmm. da nga koy gis euh, tout le temps rek daf may nuyu di te j'aimerais bien. Mm-hmm. tamit gis nañ ni am na solo gis nañ ni si. Euh, si projet bi waaw si projet bi. maanaam léegi membre la quoi. Mm, membre la si donc kooku dañ koy dañ koy bëgg bu baax a baax. Mm-hmm. Fanta maa ngi lay def un petit coucou de la part de tey Aba dañuy ñëw ci li nga xam ne tey mooy continuité parce que démb gars yi aar suivre na leen joxoon. Mm-hmm. ñu ñëwaat ci li nga xam ne tey mooy. Mm-hmm. tournée européen Wally Ballago Seck bi ak mm-hmm. Pape Diouf. ak clip bi nga xam ne tey moom la euh, déggal ma naan clip bi sax. Zénith euh, bi nga xam ne tey moom la kii di préparé. Sidi Diop Sidi Diop encore une fois dañuy ñëw rek daal di brosser waat foofu. génnaa ci leen mais laataa loolu. sunu président démb. comme ni ko gars yi waxee. Euh, son excellence monsieur Bassirou Diomaye fay dafa def visite. bu am solo si li nga xam ne mooy kilifa diine Euh, mu dem Touba. dem mhm. fa li nga xam ni tey euh, mooy Tiwaawan. Mhm. donc loolu daal di créer euh, daal di daal di répondre. Mhm. questions yu bëri yi nga xam ni tey ñu ngi ko doon teg si jëmm jooje. mu ormal li nga xam ni tey mooy Serigne taxa dem si Serigne Baye si aussi mu doon ñaari kilise yoo xam ni tey. yu am solo la. déjà naka nga gisee loolu. waaw jërëjëf Jules mbégte lañ si am. vraiment <laughs> ak contentement. ndaxte suñu président bu bees bi. Mhm. di Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu ngi koy nuyu ak gouvernement bu yees bi yëpp. Mhm. di leen ñaanal euh, mission bi nga xamante ne am nañ ko ci Sénégal yàlla nañ ko yeggale seen sago. Mhm. Ah, Jules démb mbégte la ñu am ak contentement ba ñu di président daal di jóg. dem nuyoo ji fi nga xamante ni moom mooy si kilifa diine yi ndaxte kilifa diine dañoo bokk si réew mi. te démb vraiment ba ma gisee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. jóg dem Touba daal di ziar ki nga xamante ni moom mooy euh, sëñ Mountakha euh, Mbacké. xalifa général kulli murit may mm. profité di nuyu bu baax a baax waa kër sëñ Massamba Mbacke mm. ibni mu sëñ Saliou ndaxte falaa bokk mm. ah, di leen char bu baax di nuyu suma sëriñ sëñ Cheikh Mbacke ibni mu sëñ Saliou maa ngi koy char di ko wax ni Mbacke Ball yàlla na yàlla wéree cër yi donc Jules loolu day wane ne rek euh, président xam na am nañu président boo xamante ne euh, diine mi ngi ci moom waaye am na ñu président boo xamante ne fonk na suñu kilifa diine yi ndaxte ba bañ ko tabbee ci réew mi ba tey euh, mi ngi doog a Mm-hmm. daal di génn premier sortie dem ziar Touba jógee foofu dem fi nga xamante mooy xalifa bu waa Tiwaawan mm-hmm. donc loolu day wane ni rek na nit ñi daan wax mm-hmm. euh, dañ ko tàppal étiquette boo xamante ne ay salafiste la ay kii terroriste la nangam sangam tey mu jiite réew mi tey wane na yar wane teggin wane diine bi nga xamante ni euh, mu ngi ci moom te li ma gën a neex ba muy jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy sëñ Muntaxa Mbàkke euh, daal di koy jox li nga xamante ni moom mooy ay teranga te président yi fi jot a jaar yëpp Jules hmm. da nga daan gis kenn président bu waree wax dañ koy jotali kàddu hmm. waaye tey dama mbégte bi président jëlee micro di waxtaan ak sëñ bi hmm. maanaam kàddu bi génn ci moom di dem si sëñ bi direct amul kenn koo xamante ne maanaam communicateur traditionnel bu toog naan yaay jottali kon donc loolu day wane ni am na benn changement bi nga xamante ni ñu ngi koy commencé sentir te loolu lu ñu bari bàyyi ñu ko woon xel te dafa doon ay loo xamante ni euh, euh, lu jara bàyyi xel la wane na fa taalibe waaye wane na fi kaddu bu sel kaddu hmm. boo xamante kaddu war ma la hmm. waaye daal di koy échanger teg ki nga xamante ni moom mooy kilifa bi daal di koy dénk hmm. bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy boppam waaye tamit gën a wàccee boppam ne ko nañu ñaanal si li nga xamante ni moom mooy yaakaar bi nga xamante ni askan bi am nañ ko ci moom kon donc loolu tamit day wane ni wax dëgg yàlla uh, bu yëf yi baaxee am ñoo xamante ni yaa ngi ci àdduna yor li nga xamante ni moom mooy réew mi di Sénégal uh, wax dëgg yàlla boo buggee doxal Eh, ay ñaan di la topp dafa am kilifa yoo xamante ne faaw nga leen di eh, daal di dem jege. Hmm. daal di leen di jox li nga xamante moom mooy ay kàddu te donc loolu doon na loo xamante ne képp ku nekk si Sénégal wala ngay ngay ngay eh, turu ashadu an laa démb kontaan nga si ki nga hmm. xamante mooy son excellence hmm. le président Bassirou Diomaye Diakhar kontaan nañ si ki nga xam ne tey mooy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye encore une fois donc ñu koy ñaanal encore une fois rek yan bi boo weefee si côté rek ñun Sénégalais yi dinañ ci gis suñu bopp bu baax a baax a baax a baax a baax te mm-hmm. ñu bàyyi détails yi te mm-hmm. dem si li nga xam ne tey mooy euh, li utile mm-hmm. mooy li utile ak askan bi utilité bi mooy euh, euh, wàllum vie chère beeg courant beeg li nga xam ne mooy location bi ak leneen ak leneen donc mbir la yoo xam ne tey sénégalais yi ñu ngi si xaar gouvernement bu baax a baax a te xam naa ni dinañ ci daal di def ay jéego yu mag mais émission bi nag dañuy ñëw daal di rek Mm-hmm. dugg ci li nga xam ne tey moo xewoon démb. donc li nga xam ne tey mooy Wally Seck beeg featuring bi mu war a def ak ki nga xam ne tey mooy euh, Youssou Ndour. Mm-hmm. Baaba Maal mm-hmm. Ismaïla Lo maanaam ténor yooyu noonu nga xam ne tey. ñoom euh, dañu def lu ne si wàllu musique. donc dafa suscité dafa suscité ay débat ñu bëri euh, ñi ngi wax jëmale ci ki nga xam yi tey mooy Youssou jigéen ñii ñi ngi wax jëmale ci ki xam ne tey mooy Wally Ballago mais déjà. Abba. Mhm. Euh, tey sama question dama koy centré si nga xam ne tey mooy Wally Seck encore une mhm. tey vu que moom mooy ndaw. Mhm. doon gone te am plan de carrière boo xam ne tey c' est très bien déterminé. est ce que comme li ñu doon waxtaan démb juste rek parce que lii suite bi la. parce que euh, defoon nañ li nga xam ne tey mooy à bi. est ce que tey jotul yenn yi sax maanaam moom mu démarcel ko boppam. au lieu sax euh, mu ci xaar. Euh, kii que ce soit parce que defe naan tamit bu ñu nee carrière Wally Ballago Seck la mhm. majeure partie moom la ñuy wax. Mhm. ñeneen ñi soog ñëw. Mhm. donc loolu est que tamit est-ce que jotul staff bi bàyyi ci xel bu baax a baax. waaw Jules xam nga euh, wàllu musique. Euh, dafa xaw a doy waar si ñun nuñ koy dundee fii si Sénégal. bu doon tey Wally si beneen dëkk la ne du am problème boobu noonu. waaye Sénégal ñun suñu culture dafa am nu muy doxee. te ñun fii lañ ko fekk. Euh, bu des fois doo bëgg sax fàttali yenn yi hmm. nga xamante ne daan na am si li nga hmm. xamante ne moom mooy si musique bi fii Sénégal hmm. euh, ku si mel ni ñoom euh, Omar Pène ku si mel ni ñoom Ismaïla Lo Youssou Ndour ak Baaba Maal ndem si yàlla suñu Papa Thione yàlla na suuf sedd ci kawam danga daan gis benn benn benn benn benn geer bu ndaw boo xamante ne da daan am da daan am seen seen biir te lépp rek fii lay yem ndaxte kenn ku ne yaa ngi doon yàqamti jamono yi ki nga xamante ni Youssou Ndour ba muy toj hmm. ñu fàttali boobu tamit Thione Ballago Seck mi ngi daan toj hmm. mu amoon benn yoon boo xamante ne amoon na seen diggante quand hmm. Youssou Ndour am nu muy demee quand Thione Seck am na muy demee ba fu ñu daan tase si si ay événement da da daan metti xam nga ñun mun naa ne ñu sax loolu waaye am na luñ ci for ndaxte gëstu tamit dafa baax dafa am solo gannaaw ba ñu gëstoo tamit dan gaan da nga daan gis euh, ñoom ñaar bu ñu dajee da daan metti hmm. mais tey booy fàttaliku bu baax keroog ba Youssou Ndour doon dem fi nga xamante ni moom mooy Bercy hmm. daal di invité ki nga xamante ni moom mooy euh, Papa Thione hmm. keroog la Papa Thione ñëw ba mu ñëwee tey keroog saal euh, saal Bercy ba ñëpp yuuxu parce que kenn yaakaaru ko woon ndax yaa ngi fàttaliku loolu en Hmm. yaa ngi fàtteeku loolu kenn yaakaar ko woon. Hmm. léegi ba ba Youssou ba balaa ko sekk taxawee jël micro. Hmm. daal di jël échange ki nga xamante moom mooy Youssou Ndour ne mu ne ko yu mu ne naa mu ne ko échange. mu Youssou daal di jël micro bi nga xamante ne moom la moom moom rek moo ko waroon a téye daal di koy jox Papa Thione. Papa Thione daal si yuux bu rëy. kon loolu day fàttali ne bés bu jotee lu tax ma indiwaat loolu mooy waxtu ba ba jotee. ki nga xamante moom mooy Wally Ballago Seck ak Youssou Ndour danañ daje daal di def benn morceau boo xamante ne tey bu génne réew mi danañ ko waxtaanee. Hmm. parce que loolu dafa war a bokk si carrière ki nga xamante ne. mais man la euh, euh, carrière ki nga euh, xamante ne lan ngeen di bëgg wax bu waxtu bi jotee ko wala wala instant bi nii nii nii warul mën a am ak featuring ak. non nii war na mën war na mën a ne. mais xam nga ndaw bu nekk ci yoonam. Hmm. di liggéey mi tegu ci yoon. gis naa sax am na ñu ma jot a gis sax si. commentaire yi ñu ne xaw ma. <laughs> Euh, Youssou Ndour maanaam. epogom soxlawul waale maanaam epogom jeex na. waaw waale Balaga Seck instant moo nekk si epogom leneen ak leneen. waaw dëgg la euh, defe naa ni. Youssou Ndour benn coup pouce la war a doon ci ki nga xam ne tey mooy Wally Ballago Seck pour mu mën ko propulser encore une fois parce loolu il faut ñu opposantir aussi ki nga xam ne tey mooy Abba il faut tamit ñu bàyyiloo xel ñii nga xam ne tey dañuy seetaan bien vrai que ñun ñoo toog di wax am na aussi ay borom xam-xam yoo xam ne tey ñoo nekk derrière nekk seen clavier di ñoo ñu gën a xam sax ñoo ñu gën a xam lu bëri mais si kaw loolu ñun ak yéen la mais est-ce que loolu noonu boo ko mm-hmm. daal di defoon. Mm-hmm. defe naan tamit euh, euh, euh, dina gën a nekk mbir boo xam ne tey. loolu wàllum disque door beg leen ak leen dina gën a yomb. loolu loolu yëpp dëgg la Jules International ndeysaan xam nga maa la koy wax sànq man dama jàpp ne daa jotagul Jules. Hmm. si li ma ni ma la koy waxee daa jotagul boobu nag moom nga moom nga moom nga bëggut a dégg. Hmm. waaye man dama jàpp ne daa ah, jotagul kon nañu jàpp ne kon jotagul parce que tamit booy xool Wally. Hmm. Wally moom si boppam xam na ni Youssou Ndour mooy papaam. waaw jamono toll nii. Wally si boppam xam na ni Youssou Ndour mooy papaam. Mhm. donc moom tey am na mbégte. Mhm. vraiment ak bëgg-bëgg dugg studio daal di woy ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour. Mhm. c'est important tey carrière loolu dina mën a defar carrière tey loolu bu amee ah, moom loolu da koy da koy dimbali da koy arrangé waaye tamit day gën a xam ay notes. musique bu baax si ki nga xamante ni moom mooy Youssou. te Youssou ku ko xam-xam ne vraiment euh, euh, kenn kenn kenn kenn dootu ko présenté mm. ñëpp xam nañ Youssou Ndour dayoom si mën a way mm. ndaxte way moo ko indil lu ne tey ci àddina mm. way moo tax le monde entier ñëpp xam ki nga xamante mooy Youssou gars yi di cons bu baax li nga xamante ni moom mooy musique am kon donc tey Wally ba bëggee yegg tamit ci benn level bi tamit il faut ku mel ni Youssou Ndour di ko accompagner te est-ce que xam nga ni Youssou Ndour mën na di accompagner ki nga xamante ni moom mooy Wally te ñun duñ si xam dara tey ma wax la ko. parce que xamul tax ma wax loolu des fois nga dégg si ay woyuwaale yoo xamante ni ay note musicale yoo xamante ni man day may toog ma ne waale mii est-ce que Youssou Ndour deewu ko lii. waaw <laughs> waaw loolu ñoom The Best ñoo siy xam dara wala hmm. maestro yu mag yi ñoo siy xam dara. Hmm. Jules. mais est-ce que hmm. loolu dina impacté. Jules. impacté boobu maanaam ni mu nekk si ginnaawam nekk dans l'ombre est-ce que moo fësalu ko woon gënul ma ne loolu moo tax tey awoon na biir fii bii ñor mu daal di dem def di def tournée waaw hmm. note musicale bi nga xamante ne mi ngi si albumu Wally tey man man de man de njort naa waxuma ne am na de waaye njortu naa ni Youssou Ndour dugal na si loxoom hmm. waaw waaw parce que des fois nga dégg loo xamante ni da xam ne lii a ah, am na mag bu ko ko dee hmm. bu dul Baaba Maal di Ismaël Lo di Omar Pène Youssou Ndour la te man si waali balaa ko si Seck bi passé I Wanna Be Free bi hmm. dégg naa si ay not yoo xamante ni ah waa Super Étoile ñoo ko jox de hmm. Youssou Ndour moo ko jox de hmm. kon mën na di liggéey ak moom te ñun duñ si xam dara moo tax ma ne la bu jotee ñoom ñaar deneen tase foo xamante ne kenn yaakaaru ko woon parce que tamit Wally bëgg na si biir xoolam daal di delluwaat fi nga xamante ni moom mooy Bercy waaw parce que ba mu demoon ak berse bi mu nga xamante ne war na ko mën a tëggaat du bokk te maa ngi ñaan yàlla berse bi nga xamante ne bëgg amaana mi ngi koy wàcc mm-hmm. ndaxte war na bokk si carrière am war na bokk si li nga xamante ne moom mooy tournée bi mm-hmm. daal di tëgg benn berse bu rëy boo xamante ne pourquoi pas Youssou Ndour ñëw taxaw pour mm-hmm. pourquoi pas Omar pour quoi pas ñoom Baba Maal pourquoi pas ñoom Ismaïla Lo ak ñeneen ak ñeneen tant d'autres ñëpp ñëw accompagner ko parce que xam nga lu tax moom mooy ndaw mooy artiste boo xamante ne bu génnee ñëpp génn. Hmm. mooy artiste boo xamante ne bu absenté ñeneen artistes yi mën hmm. nañoo profité. te ñëpp ay papaam lañu. waaw ñëpp ay papaam lañu war na war na mën invité. mettre hmm. leen au devant de la scène. mi noonu tamit. mi ngi noonu parce que tamit ndem si yàlla papa Thione avant mi génn adduna woon na artistes yëpp ñoom El Hadj Keita ñoom Bambali ñeneen ak ñeneen. ñoom Momo Dieng ba gisee ñoom ñëpp ñu dem studio. Hmm. woy ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Papa Thione hmm. kon ni ko Papa Thione defee man gëm naa ni balaa Ballago Seck dana ko def ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy papam hmm. parce que papam am na album boo xamante ne ma nga ko doon togg bàyyi ko fi loolu rek patrimoine la loolu rek war na Wally war na see mun a liggéey ànd seeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy Youssou Ndour te hmm. tey bu defee loolu tey gàcce ngalaama hmm. wàcc na bu ko neexee bàyyi woy ànd ak disque door hmm. te loolu la ñuy ñaan bu ko amee nag te ñeneen artistes yi ñi si topp nag daal di góorgóorlu def noonu kon moo tax ma ne la nañu am yaakaar dans l'avenir ñoom ñaar dinañ def morceau même bu dul Youssou Ndour ak ñeneen ak ñeneen danañ ànd ak moom def morceau te li ma la wax ni na nga ko jàpp te commentaire yi danañ danañ si ñëw ñii seetaan danañ xam ne ma wax man njort naa ni album bi nga xamante ne waa liggéey na ko ay notes Youssou Ndour mi ngi ci Hmm. waaw Jules l'international maa wax ak yow de. d' accord d' accord loolu loolu aussi dul la ko bañal. voilà defe naa ne aussi euh, li nga xam ne tey yaa ngi koy mhm. développé. depuis mhm. pas mal de temps aussi xam nga ko. Mhm. donc mu doon euh, mbir moo xam ne rek. Euh, defe naa ni. coup de pouce la. boo xam ne tey dan koy bàyyiloo xel ki nga xam ne tey mooy Wally Ballago Seck. encore une fois en même temps aussi staff bi staff Wally Ballago Seck. defe naan tamit euh, jot nañu gën a mature mm-hmm. si li nga xam ne tey mooy carrière Wally Ballago Seck parce que tamit mm-hmm. euh, gis nga tournée bi nga xam ne tey moo xew fële sa Allemagne mm-hmm. ba ñibbisi na sax ba ñibbisi na en comprendre donc doon na ay aspect yoo xam ni tey euh, mm-hmm. euh, euh, staff yi dañ si war a gën a mën a bàyyi xel bu baax a mm-hmm. baax a baax a baax génn si ay détails mm-hmm. ay mbir yoo xam ni tey dafay nuire ki nga xam ni tey mooy le chanteur Wally Ballago Seck wala di ko dugal ay mbir yoo xam ni tey maanaam mën na bañ nekk combat ci moom maanaam mu gën a propulsé wu au niveau international comme que instant yi mi ngi teg ay jéego li nga xam ni tey mooy tournée bi dafa jàppoo ni li nga xam ni tey mooy staff yi war nañu gën a mën a xoolaat seen bopp bu baax a baax xool ci li ñuy dugg ak seen artiste. mais Jules staff bu baax a tax mu yegg fi. Hmm. <laughs> waaw bu yoroon staff comme yeneen staff yi du yegg fi. Hmm. staff bu baax am équipe boo xamante ne xam nañ li ñu yor. Hmm. waaye tamit am équipe boo xamante ne xam nañ lan mooy musique. moo tax tey Wally yegg fu sori tey. moo tax mu dem ba Allemagne te di waaj yeneen date staff bu baax moo tax mu ñëwaat dakaar Hmm. def fi deux jours répétition war a dem Guinée le vingt bi hmm. waaw yaa ngi may dégg. Hmm. kon donc kooku staff moom ah xanaa dolli nga leen di wax. waaye bu fekkee staff bu baax waaw xam nga waxuma staff yi baaxul. waaw mais maanaam li ñu war a gën a mën a redoubler d'effort. ñoom ñu ngi ci professionnalisme. pourtant ñu ngi ci de. non léeg-léeg da leen dégg si ay détails de. léeg du staff bi non bu boo déggee détail du staff bi. man tey bu fekkoon staff bi ñooy def. détail sañ na euh, maa toog fii wax euh, ma ne euh, staff. si staff bi. mais Omar aussi staff bi la bokk. <laughs> waaw mais communication la mais communication. mi ngi tegu ci yoon <laughs> kon kay mi ngi si staff. mais communication bi ñu ko euh, euh, euh, problème ak ay aadama maanaam détail yooyu laa la wax. waaw waaw loolu dëgg la jarul ñu gën cee. parce ba loolu xewee. ki nga xam ne tey mooy aadama dafa génn. def ay vidéo xam nga aadama moom moom ku ko laal le monde entier dinañ ko la mu def ay révélation bu waale réalisé woon neneen. Mhm. noonu la koy waxee si li nga xam ne tey mooy plateforme bi. waaw moo tax man la est-ce maturité boobu noonu nga xam mhm. maanaam au international gars yi ñu koy xii parce tamit mhm. am am na démb ñu doon wax naan naan euh, gis nañu benn benn benn journal mhm. Allemagne. Mhm. ñu daal di def photo Wally Ballago Seck def ay. Euh, prestation bi nga xamante def si moom ay prestation maanaam maanaam ay mbir yu bëri yoo xam ni tey. révélation def nañ ko gëstu. si mhm. Wally Ballago Seck. encore une fois. parce que tamit dem na ñenn ñi ñu ngi naan bu nu moytuwul Wally Ballago Seck Sénégal yi dinoon ko ñàkk ak leen. ak leneen te man maa ko fi moo tax man la nag est-ce war nu gën a mën a <laughs> de vigilance en même temps aussi professionnalisme balaa muy tàbbi ci yeneen loxo yoo xam ne tey amaana ñoom. Mhm. ñoo ci waroon na mën a gën a jëriñu. waaw loolu moom wax dëgg fa neexee boo bëggee dëgg-dëgg. Mhm. Euh, bu wax dëgg rek jotee. loolu dama la koy nangul ndaxte nit moom bu ñuy ànd des fois du ñàkk kenn daal di juum. Mhm. waaye du ñu du ñàkk rek bu ñu waxtaanee danañ gën a mën a tegu ci yoon. ndaxte wax nga ko staff ba tey lu xew rek ci staff bi la te Omaro ci la yor moom mm-hmm. mm-hmm. wax la waali mm-hmm. fan la waali jóge fan la jëm kon donc moom bu defee voilà voilà Baysal amoon na fi benn altercation voilà waaw yooyu yëpp passé na moo tax man damay gës <laughs> <laughs> te sant yàlla rek gannaaw ba Omaro defee erreur bi ndaxte mënoon na koo def ci jour événement bi. Mhm. mu am problème. Mhm. waaye def na ko foo xamante ne tey maanaam si si si si si euh, nan la si si si kii bi waaye nu mu tuuti fa si hôtel bi la mhm. ko la ko la ko defee te te ba mu dooree ku ki nga xamante ne moom mooy euh, Adamo euh, coow li daal di jëpp waali ñëw na si xel mu sell te te tey waali tey moom moo waroon a sax moo waroon a dàq ki nga xamante ne mooy Adamo waaye tey moom defu ko woon na leen ñoom ñaar voilà ñëw waxtaan ne ngir yàlla lii moom bu mu fi am ah nañu éviter lii. Mm-hmm. kon donc loolu danañ man am naa yaakaar que ni ñoom dinañ waxtaan seen biir ba nga xamante ni euh, staff bi danañ gën a mën a tënk seen biir ba nga xamante ni erreur bi mu ni dootu fi amaat. Mm-hmm. ndax sànq wax nga ko tantôt démb laa fi toog émission bi. wax la ni waali boo deful ndànk danañ ko ñàq. ñu xëy journal bu bu bu bu Allemagne. daal di bind si waali. wax ñu loo xamante ni ñun xamuñu ko woon si waali. kon donc loolu day tax rek ñoom ñi nga xamante ni ñooy bi. ñu gën a téye. seen seen seen artiste. Hmm. gën a xam ñoom fa ñuy teg seen tànk. Hmm. ndax seen bu ñu xoosee kenn sax. Mm-hmm. ñëpp koy titre ñëpp mm-hmm. koy bind kon li nga wax tamit euh, dama si ànd ak yow daal si d'accord bu baax a baax mm-hmm. Jules International donc euh, ñu lay béggawaat bu baax a baax di fàttale gars yi ñu ngi ci émission bi nga xam ne mooy web matinal encore une fois euh, dangeen koy am à fi nga xam ne mooy suñu plateforme yi tey nag ñu doon def li nga xam mooy continuité li nga xam ne tey mooy li ñu doon waxtaanee démb si tournée européenne ak leneen mais tey balaa may tëj Brest boobu Pape aussi moom day def ay tournée la majeure mhm. partie euh, France la koy defee mhm. donc euh, Marseille feneen ak feneen mhm. donc aussi moom aussi mi ngi gën a marqué li nga xam ne te mooy empreinte am te empreinte boobu aussi def naan aussi lu jar bàyyi xel la démb maa ngi gis ni am ko wax ni Jules il ne faut pas mettre en concurrence avec euh, tes artistes yi nga xam ne mooy Wally Ballago Seck leneen ak leneen mais milieu bu ñu nekk ñoom. Mhm. showbiz mënoo mhm. ci génn concurrence. Mhm. mënut a ne c'est impossible encore une fois. yaa ngi comprendre. tey au li tax concurrence bi fës. tey gis nañu ki nga xam ne tey mooy Youssou Ndour. ak euh, suñu Papa Thione def li nga xam ne tey featuring. mais gisagoo Wally Ballago Seck ak ki nga xam ne tey Pape Diouf def featuring. dëgg la leneen ak leneen. te loolu war na gën a mën a. jaay seen image ñoom. au niveau international. moo tax concurrence boobu noonu day flagrant. comprendre nga. Mhm. xam nga boo xam nit ñi dinañ mën a comprendre fi ngay waxee wala. Mhm, mhm. tey Pape Diouf jéego yi nga xam ne tey mi ngi koy teg. aussi defe naa ne aussi même pas yi moom la kii di Wally Ballago Seck di teg. waaw xam nga. wala am na différence. non xam nga non différence am na fa tuuti. Hmm. waaw moo tax démb wax naa la ko. Euh, mais di rafetluwaat commentaire yi. Hmm. ndaxte ñoom tamit ci lañ bokk. parce que hmm. si ñoom la ñuy sukkandiku. ñu gën a mën a xool naka la ñuy gën a mën a liggéeyee. ak ñoom parce que ñoo bokk waxtaan bi bokk bokkul bokk dafa xaw a wuti tuuti. maa ngi la koy wax démb ndaxte kee dafa liggéey benn album boo xamante ni moo tax mu dem. Mhm. mais kii beneen artiste bi di Pape Diouf dafa jóg dem defi tournée boo xamante ni moom ak ñeneen ñi nga xamante ñoom ñoo ko woo maanaam benn promoteur bi ko woo pour ñu dem defi defi defi tournée. Mhm. mais kee dafa jóg ak li nga xamante ni moom mooy albumam bi mu liggéey moo tax yëf yi du bokk mais ba tey rek comme que artiste la ñoom tamit góor góorgóorlu na. liggéey na loo xamante ne tey ba kenn si ñoom ci promoteurs yi woon nañ ko yóbbu ko France. Hmm. ñu def tournée foofu foofu sa France donc dañ koy féliciter. Hmm. mais ñu dolli leen rek man li may wax rek mooy artiste tey bu yéegee tey drapo Sénégal lañ yéegal. Hmm. tey Pape Diouf bu demee. ba ñu koy concurrence ak yenn artistes yi nekk foofu noonu tey hmm. fierté la si ñun hmm. mais dañuy leen leen di fàttale tournée neex na lool hmm. dem France dem fii dem fu ne neex na lool ngay dem di way mais dafa fekk ne rek man lu fay mun ti dem rek yóbbaale loo xamante ne tey dana fa des tey Wally dem na mais tey ba na fa empreinte ba empreinte am weesuwul nga dem tourner dëkk jàmbur ñu xëy si journaux yi bind la. Hmm. man fa laay nawee artiste. Youssou Ndour saa yi génnee bitim demee bitim réew buy ñëw Sénégal mu bàyyi fa empreinte. mais Abba est-ce que détrôner. <laughs> Euh, yaa ngi may di Youssou Ndour dina yomb. est-ce que détrôner parce que ak parce que tamit nag euh, ah, euh, artistes yaa ngi fi mën nañu woy mën na ne. mais est-ce que détrôner ko maanaam. waa ji mu def li nga xam ni tey. mën na ñoom ñu def plus que li nga xam ne tey moom la Youssou Ndour def parce que tamit ma ne mën na ça demande euh, travail boo xam ne tey tra travail acharné waa dëgg la mais si sa bopp si sa staff Youssou Ndour doo ko dégg mu tontu doo ko dégg ci ay détails doo ko dégg ci ay leneen ak leneen moo tax man li may conseiller à ah, tout le temps ak lu la nattu artiste boo xam ne coow ko kii li may conseiller tout le temps waale bala ko sekk may conseiller man waale bala ko sekk <laughs> mooy na gën a dem si côté Youssou Ndour encore une fois ngi ci man am naa ji yaakaar wu laa wax na si tax rëpp. Mhm. bu si deree tax na si tax rëpp. Mhm. parce que tamit. Mhm. juste nu fu mu nekk nii nii nii nii nii nii nii nii nii. peut-être mën nga ko mën nga ko bañ. Euh, kii ci ay domaines yu bëri. mais carrière am. daf ko ñàkk de telle sorte que ba léegi. mooy exister. parce que tamit euh, disque door yi nga xam ne tey indi na ko fi. Euh, boobu ba léegi. gisaataguñu beneen artiste indi ko Youssou Ndour la Youssou Ndour maanaam kooku leneen la kooku jëndal la. mais est kon doon na kon li mu la bëgg waxal ñu jàppal ma si loxo waale bala ko sekk bi yóbbul ma ko ci papa yu. moo daa daa jotul rek. nee la boo deful ñoom ñaar ñi ngi déggoo di liggéey te kenn xamu si dara Jules l'international kon baax ah mais l'essentiel suñu artistes yi ñi ngi góor góor ñi ngi teg ay jéego ñi ngi avancé di créer tubaab bi di leen naw di conseil de musique donc nañ leen accompagner rek d'accord man man accompagnement bi c'est la nekk nii de man moo wax kële waaw waaw mais dañuy dolli rek waaw dañuy dolli rek parce que tamit boo bëggee jël affaire bi Youssou daa gëm boppam ba am li mu am. Mm. kon ni Youssou gëmmee boppam ba am li mu am. Mm. Waly Ballago war na mën a gëm boppam. Mm. Pape am li nga xamante ne si euh, brèche boobu. Mm-hmm. tëjee ngi may si temps <laughs> 2018. aussi moom aussi kenn demul mu des. Zénith te gis nga affaire yi commencé daw de. waaw na nga gisee di di di di ko féliciter rek. Hmm. di ko félicité ak estafam ñëpp ñi nga xamante ne ña ngay dem fa sa Zénith hmm. defe naan su ma juumul cette fois-ci j'espère que kenn du euh, ah, su ma su ma juumul si date bi laa xaw fàtte hmm. mais l'essentiel mi ngi dem publicité yi génn na affiche yi génn na ah, waaw est que Sirou du la woo ngeen ànd waaw bu ñu si liggéey man ku ma woo si liggéey ma àndak ak yow waaye man yàlla def na ni wax dëgg yàlla maa ngi liggéey te fréquenté wu ma benn artiste mhm. waaw moo tax may am sañ-sañ di dem di cof si artiste bi rek xam lu mu mën ak lu mën a ma ñëw teg ni la en tant euh, invité nan dem quoi <laughs> mais mais ma ànd ak yow ñu hmm. dem damay laaj rek ah mais ñu dem mais l'essentiel événement hmm. lu ma si yokk mooy hmm. ma ngay dem Zénith na liggéey benn morceau boo xamante ne bu demee Zénith dana fa des waaw Jules morceau bi accompagné. morceau bi accompagné événement bi moo génnagul. Hmm. waaw Sidi na dugg studio liggéey benn morceau boo xamante ne dana accompagner Zénith bi. boo xamante ne dana cartonné. Hmm. génne na benn morceau barki démb di waaye ay maam Ndiaye Samba ak ñu kenn xamul loolu de ñun waxuñu loolu. man xaarewuma foofu sii boo jaar laax leneen. non non non xam nga tey xam nga tey dañuy man d' accord ma nga dugg nga dugg studio nekk di way ay maam Ndiaye Savon. ay ak. waaw dafa warul way Mame Ndiaye Savon non ngi nekk fi dugg studio di way ay maam Ndiaye Savon mais na dugg studio way loo xamante ne tey dana accompagner événement bi Zénith mu dugg mu. Ah, tey Mame Ndiaye Savon mooy xam nga bëgg xam nga la laa bëgg Zénith. guichet fermé laa fa bëgg. Hmm. Sidy Diop dugg foofu mu am guichet fermé. fees dell rang bi serré ba ñuy xëy mi ñu ne dañuy raxasaat. Hmm. Wally daa tëgg Zénith ñu xëyaat def raxas mais pourquoi pas Sidy mais loolu bu ko bëggee am xam nga lan lan la mën a demee am ak euh, ay morceau ay morceau ay mais mënu koo am ak ak woy woy bu mu woy Mame Ndiaye Savon hmm. ay woy ay taaxuraan de ay hmm. siidi ñëw naag hmm. ay siidi lay non non yan woy dafa war a woy loo xamante ne ku kontaan dafa war a woy boo xamante ne bu génnee maanaam si plateforme bu lay foo tourné gis ko maanaam bëgguma mu génnee woy bu mu génnee Mame Ndiaye Savon 3 mois 2 mois kenn dootu ko diglu hmm. ban xew ngay dem ñu lay tegal woy Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye ñëw nag lii nangam sàngam ban xew ngay dem anna ban ban événement ngay dem ñu lay tegal woy sii di Diop bu mu woy Mame Ndiaye Savon hmm. mais d'accord moo ko hmm. mi ngi dem Zénith événement la saa waay du lu ndaw de saa waay du lu ndaw de du ñeexu ñebe de man dama bëgg artiste buy jóg di dem nga feesal ko guichet fermé jamono ju ñu toll nii moom bu demee Zénith di way moo Dieng mi nga xamante ne jamono yu ñu toll nii mi ngi cartonné te ay way ngay dégg kooku bu demoon tey Zénith da koy feesal. Hmm. mais da jàpp ni Sidy bu continuer nii du feesal. non bu continuer nii nii nii dem fii fii ba ba date bi war a dem Zénith nii te génnewul benn morceau boo xamante ne day toj. Hmm. benn morceau boo xamante ne réew mi tubaab bi day naan kat moo way lii. Hmm. du feesal Zénith te man dama bëgg mu feesal Zénith. ndax bu ko feesalee su man bu bu amee ndam boobu su ndam la. Mhm. donc artistes yi il faut que ñu leen di dimbali. Mhm. di leen wax morceau yi ñu war a génnee. Mhm. dugg studio woy amoo looy woy nan ay Mame Ndiaye Savon ngay waaye ay nangam sangam te xeesal bi temps mi ngi rey nit ñi. waaw ah, xeesal bi moom gars yi ah. moom benn aspect. mais xam nga yooyu tamit il faut ñuy wax dëgg tamit mi ngi noonu. mi ngi def ay ravage mi ngi noonu xeesal bi jigéen ñi. ah léegi man dama bëgg maanaam bu duggee studio génn réew mi toj ñu ne Sidy Diop ah Sidy way na hmm. mais Sidy Diop ba Zebes génnee ba tey foofu sa Subatel musique dafa am problème hmm. nekkatul au diapason lii man maa la ko wax fii te ñoom yu bëri dañ di sax ñoom xam nañu Sidy ay ñoom Jules kii Jules waa ji bongo nekkatu fa Ousmane Bongo xaw ma man xaw ma sa euh, Ousmane Bongo si lu mu ne xaw ma sa si lu mu ne Bassoum je pense mi ngi fa xaw ma daal moom mi ngi woon Gambie bi ngi koy nuyu au passage dama ne hmm. Sidy Diop xam nga kañ la gëj a percé kañ la gëj a toj ba Zebes génnee Sidi man maa ko koy wax fii wala estafam wala ku jege Sidi ngalawaay. Hmm. woo leen sa bés ngeen xool ni ngeen di liggéeyee pour Sidi Diop nekkaat au top. barki Demba Ndiaye Titi ak Demba Gise seen hmm. morceau bi moo nekk si hmm. bi. moo loolu foofu maanaam loolu mooy artiste. artiste loolu nga war a liggéey. parce doo dugg studio woy bay bëgg a dee. génn sa yoo xam ne war na ko mën a woy Zénith nag. mais tamit wii ma wii ma nag wii ma Jules dañuy waxante dëgg. Jules. ah bu jaay suñu artistes yi man dama bëgg. Ah, dama koy jàppale nag yor nay son yoo xam ni tey bu ko tëggee Zénith fële gars yi dañ koy dañ koy dañ koy gérer de. du way Mame Ndiaye Savon bi rek la yor de. ñaata way la way. mais Sidy Diop lu mu fi way du way am dem Zénith di ambiance kese de. Hmm. wax dëgg yàlla nag ay nawlem ñoo fa nar a nekk de. nit ña fay ñëw ay nawlem leen de ñu muy invité ay nawlem leen de du ñu jënd ay billet billet yu cher dugg Zénith si di naan maam na ii ñëw na non non tamit Jules non mais quand même il ñu leen di wax dëgg avec Siri Diop c'est une très longue histoire koy wax chaque jour fii Jules doo leen ko bàyyi xel man damay mais waa ji nii ak Siri Diop man damay c'est une longue histoire Jules man damay dimbali artiste hmm. Siri Diop dafa am lu mu manqué mais nee naa Siri am na yeneen son mais dafa lu mu manqué tey man bu ma nekkoon si staff dama kaa naan hey jàpp si nopp kaa ñu toog ñu waxtaan saa boo bëggee Zénith bi perte. Mhm. kaa ñu wooy Zébès wala ñu xool keneen. mais est-ce que li mu bëgg dina ko am fële sa Subitel est-ce que. wax dëgg yàlla comme ñenn ñi ñuy wax naan ñi génn foofu ñi naan Sidy Diop wax dëgg yàlla moom ba Zébès génne ba tey ba Zébès génne ba tey. billaahi su ma waxee dëgg rek. Mhm. man sentiratuma Sidy Diop. dafa am lu mu manqué. Sidy Diop dafa am lu mu manqué de. Mhm. kii mu manqué ki ko mooy mooy sa bés yow xam nga li ma lay wax. Hmm. ki may seetaan xam na li may wax. Hmm. dana am ñu d'accord am ñu d'accordul. bés ma ngay mais sa bés moom daf ko manqué. Jules Jules. Hmm. Sidy Diop na géej na percé wala da daan génne mu def bum. nga dégg Sidy Diop génne def bum. sa waay Zénith euh, euh, kii day ñëw. Euh, kii nu mu tuuti Sidi kii jabate day ñëw. ñeneen ak ñeneen artistes dañuy ñëw. kon galawaay. na dugg fay bor voilà na dugg studio liggéey benn morceau boo xamante ne day accompagner. Hmm. événement bi jour hmm. international. donc na liggéey loo xam ne tey dafay accompagner li nga xam ne mooy événement bi. Hmm. di fàttali léegi ñu ngi doon wax si cadre ZBES. démb rek ñu ngi may envoyé benn affiche su El Hadj Keita El Hadj Keita mi ngi waajal lu am solo. sama waa ji donc ki nga xam ne tey mooy euh, El Hadj donc. nar na daw. nar na garaaw de. waaw mi ngi li ma gis nii moom defe naa ni. Mhm. dina doy waar quoi. Mhm. donc euh, GBS ñu koy béggawaat bu baax a baax a mhm. baax a baax parce que moom aussi daf ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax encore une fois. donc euh, sans plus tarder rek. ñu bàyyi la nga tàggoog mbokku internet. waaw Jules maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi kontaanaat bu baax. di di waat émission bi. di jégaluwaat bu baax su suñu ami fidèle téléspectateurs yi xam ne bu ñu fi toogee rek. si ñagas ñagas. voilà bu ñu fi toogee ñun dañuy wax loo xamante ni moom la ñu am na ñoo xam dinañ ko jëlee euh, positif am na ñoo dinañ ko jëlee négatif waaye mm-hmm. lépp lañuy jël rek mm-hmm. boot daal di si jëlee jàngat mm-hmm. waaye di aman mbégte ak contentement bu baax a baax di wax ne kàddu bu ñu fi yëkkati rek na doon kàddu boo xamante ne day dimbale artistes yi mhm. artiste bu nekk au top bu ñu toogee fii ñu waxtaanee ko mhm. artiste boo xamante ne dafa wàcc yoonam ñu yëkkati ko teg ci yoonam mu dugg studio liggéey mhm. te loolu dafa am solo man dama jàpp ne artiste boo nee artiste nga ret boo boo boo duggee studio génn da nga war a liggéey morceau boo xamante ne bu génnee dafa war a dund dafa la war a fay. Mhm. ma loolu laa gëm. moo tax ñu leen di jàppale bu baax. donc mhm. mbégte ak contentement bu baax a baax la ñu am. di mhm. la sant bu baax. di la jaajëfal di jaajëfal princesse di jaajëfal Idi. waaye di nuyuwaat bu baax a baax waa diaspora. maa ngi leen di chaaraat bu baax mais euh, gis nga tuuma yi princesse nekk di ma tuumaal si. gis naa ko tu ah am na ko am na lu ma la lu mu la xamal. am na am na am na am na lu am na lu ma xamal noo kii xam naa ni maanaam ah. moom dig lañ nar a jëm ah, dig xam nga ah, dig division des investigations criminelles ah am na lu ma xamal parce que elle fait des menaces di def ay menaces ak ay yëf yoo xam ne tey mooy loolu am na lu mu la xamal internet yi wax leen ak princesse am na lu mu la xamal wax leen ak moom essentiel daal yow nga dossier boobu faa ñu yóbbu ko tribunal lan la ma xamal <laughs> faa ñu yóbbu ko tribunal waaye di profité dossier bu naw dossier bu luur <laughs> ay ki nar a jugé dossier boobu <laughs> di di profito di souhaité di souhaité suma benn euh, frère euh, di Gomis euh, taalibi sëñ Bamba hmm. nit ku baax PDG wal ko TV sama nawle vraiment di doon nit ku baax hmm. tey la anniversaire am donc Gomis Bamba waaw joyeux anniversaire mon frère yal na la suñu borom defal jàmm hmm. nit ku baax la wax dëgg yàlla si terrain bi lañ xamante waaye wax dëgg yàlla saa ñu toogee mi ngi may yokk ne ma affaire yi mi ngi baax persel gëmal sa bopp ak yooyu noonu donc mm-hmm. nag euh, di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal xéwal ak sutura a a na nag ñu defal <laughs> sargal mais doomu ndey borom runkum ndaje runkum ndaje ka jooyee ray nag runkum ndaje kenn du moom Ousmane Daba ñu koy bëgg bu baax a baax ngalam fu mu ne ngalam ngalam fa la ne aba gisatuma ko déggatuma ko ngalam faama la jënd say dossier ngalam un jour romb naa ko muy mu ànd ak benn xale bu normal xam moom nee na mooy mbedd bu mbalit ah. ma ne sama xel ah. waaye de mi ngi yor mbalit boo xamante ne mbalit ba yooyu du ko yóbbu su mbalit mbalit bii moom xanaa du dem mbalit ngalaw ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ñu leen di bëgg bu baax a baax à chaque fois nii lay demee Baba eh, Ndiaye suñu grand dama ni ah émission bee neex rek Baba Ndiaye na la suñu borom defal jàmm borom ITV ah Jules Jules Soñaan maa ngi lay char bu baax. gen samay gars yi lañ Jules Soñaan di nuyu jërëjëf donc ñu koy bégg bu baax a baax a baax a baax di béggee njàppali ah njàppali mm-hmm. dama xam ñaari njàppali nag mm-hmm. ñaari njàppali donc ñu may wax dinañ comprendre njàppali maa ngi lay bégg bu baax a baax a baax a baax a baax l' <laughs> eh, émission tire à sa fin ah mm-hmm. bëgguñu woon mu jeex nag mais si nag bi xajul si cin bi donc à chaque fois rek nii lay demee eh, si suñu plateforme web info leen di abonné di li nga xam ne tey mooy information yi nga xam ne tey dañ koy def continuer leen di commentaire bépp commentaire boo leen commentaire euh, dinañ ko gis te dinaa commencé sélectionner ay commentaire incha allah ñu wax ci ñoom xool aussi yan mm-hmm. thème lañ ci mën a génnee mm-hmm. pour mën a toog parce que tamit ñun ak ñoom benn lañu mm-hmm. donc ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax di dem ba wakaam di bëggee sama famille euh, d'ici là portez-vous bien di leen jaajëfalaat ba suba incha allah jaa ngeen jëf